mercredi 16 juin. 2021 mbokk yeeg xarit yi ñuy seetaan à Equivox TV nuyu nañ leen amati nag euh, mbégte rek di jàkkaarloo ak yéen saa su nekk nee naa leen nii lay demee lépp loo xam ne rek jógee na ci làmb ji dinañ fii daal di ko waxtaanee mais à chaque fois ma ciy ànd ak sama góor di Babacar Babacar nuyu naa la. maa ngi lay fay ami maa ngi ci jàmm. waaw maa ngi sant yàlla bu baax a baax maa leen di nuyu ñoom ñëpp a ah, ñuy suivre à le monde di leen ñaanal jàmm di ko sàkku si ñoom. Mhm. wax di leen wax ne yàlla na yàlla defal ñëpp jàmm. mucc gu ànd ak ñu wéradi yàlla wéral leen mhm. ñi si kaso yi yàlla génne leen fa jël seen njaboot yàlla def jàmm si àddina bi daal amin mhm. am na solo donc ñu dem seetaane li nga xam ne moo di revue bi daal di del si waat asalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum wa rahmatullah mercredi 19 juin 2021 dañuy okkin ci likaay suñu lamb la ñuy xëy doore ko yëglikaay bi di sunu làmb nag tey xëtam mu njëkk fa mu ci xëy génn fedd la maanaam daal ginnaaw li nga xam ne nii dañ koo seetlu muy ay violence yoo xam ne bu ñu wootee ab face à face ci mbir yi ñu war a jàkkaarloo waxante diggante maanaam mbir yi fa muy mujje mooy tojante ay bopp agressé nangu yu fi jàmbur def lu la neex léegi nag seen seede na leen ginnaaw ba noonu la mbir yi nag maanaam des ci jël ay ndogal ndogal yi ñu jël nag fi mu nekk nii daal nee nañ leen leegi daal imposé nañ ña nga xam ne nii ñoom ñu organiser face à face maanaam fi mu nekk nii képp koo xam ne warati nga dajale ñaari mbër ñuy jàkkaarloo léegi da ngay ay force de l'ordre maanaam sécurité ngay jëkk lijjanti ba pare doog a wax waxi fooy defee ak noo koy defee waaye nee nañ leen bu loolu moom bu ko kenn xalaatati moo tax yëglikaay bi ñëw dinu li ay face à yoo xam ne amoon na fi ci ay photo ku ne xamoon na ne Zos Ama Balde amoon na fi booy ñang Lac de Guiers numéro 2 Tapha Tine Gouye Gui waaye Balla Gaye numéro 2 Modou waaye ba tey Balla Gaye ak Gris Bordeaux sunu lamb moo xëy tey dikkal ñu ci aw foto ci face à face yooyu nga xam ne amoon na fi mel ni ki nag daal soo bëggee dégg dëgg daal léegi moom gaaya daal la ñu wax gaaya leer na ku ko fiy defati di loo wutil sécurité boo ko mënul moom bu ko xalaat ba di ko def Bombardier moom maanaam jàkkaarloo am na ko la 31 juillet mook Balla Gaye arbitre xëy tey wax ak moom boo ma ja daal ne na fi ñu ni moom mu nga ca fond ba maanaam daal boo ma gee dégg dëgg daal maanaam sës a à sës wi à daal la Bombardier xëy tey wax ca sunu làmb adversaire ba nga xam ne nii moom la war a bëreel muy Balla Gaye numéro de démb waxoon nañ fi ne wuy juróom moo di Double Less dafa wéra di ba nga xam ne nii daal sonn na lool waaye wéra di ga nag daa mel ni daal ak njabootam seetaanuñ ko de ndax dag boo bëggee dégg-dégg sunu làmb nee nañu daal ci ay xibaar maanaam kii di doomam di Balla Gaye donte mu nga ca pari jël na papam yóbbuwoon ko ca këram nga nga xam ne moo nekk ca Maris ngir mu fay dallu maanaam daal di fa dund loo xam ne daal lu gën la ci moom terewut tamit fa nga xam ne nii fa la nekk bu dee ci Kër Massar la saa Thiès saa yu xëyee dina sol aw dàllam dem fekki ko fa maanaam xool ci nu mu nekk jàppale ko xool ci naka lay dunde ak nu muy tooge ngir wér a dem gën a tàqali ko ak moom sunu làmb moo xëy tey ñëw dinu wax lu mel ni ki noonu buñ fa jógee ba tey ci ñoo xam ne seenub diggante dafa nar a metti ba yegg ca lool muy Tyson 2 ak ki nga xam ne moo di Franc yëglikaay bi nee na daal combat bu la lanu jëm samedi jiinu jëm le 19 combat la boo xam ne daal soo bëggee dégg dëgg moom foo ko takk ki ak dangereux weesu na ko muy Tyson 2 ak ka nga xam ne nii moom moo di France te va Vox Arena jaar fa tëgg boobu combat ñeneen ñoo xam ne tëgg nañu ab combat jàppal moom moo di les waa CNC bi maanaam les mercredis du CNC daal tey jii daal boo bëggee dégg-dëgg Iba mécanicien ak takk ndeer ca Iba Mar Diop dañ fay bëre yëgli kaay ba moo xëy tey ñëw di wax lu mel ni ki noonu keneen koo xam ne tëgg na ab combat muy Fallou Ndiaye combat bu mu taxawal ba tey muy combat ay xale la 8 août la fa géné am mu war a dox ci diggante Félix ak Vieux Dacia yëgli kaay bi xëy na tey ñëw wax nu ko Tyson de ak Franc tudd naa leen fi léegi waaye am na keneen koo xam ne ni moom yemut ci tudd leen nee na ñoom ñaar samedi ku ci daan sampal naa la am ndën wala nga daanu mooy ka nga xam ne ni moom mooy général Malika moom daal loolu la xëy tey wax ko maanaam ku fa daan daal nee na pare na ngir defante ak yow koo xam ne samedi itam day bëre muy ka nga xam ne moom moo di ka nga xam ne moo di gargade yëglikaay bi tamit ñëw na ci moom ak open press ba nga xam ne def na ko démb ba tey bu nu continuer fa nga xam ne nii moo di ca sunu làmb làmb leneen loo xam ne gis nañ ko fa ci wàlli làmbi simple ji ak mbër yoo xam ne ren soo bëggee dégg-dégg ñoo ci teg seen tànk muy Dudu Saane mu jof yor ka nga xam ne moo di Ibu Njaay ba tey di doomi jof yor Serigne Njaay numéro 2 bu Faas ngañ seen tamit ca la bokk ak Franc bu parcelle mel ni ki mbër yi daal ren moom daa mel ni galaayiñ fi tegagu la ca ëpp ñoo ko ngar daajoo yóbbu ko seeni kër dal di ko nangu ci loxo loxooy ña nga xam ne ñoom lañ ko seqal beneen yëglikaay boo xam ne xëy na tey ngar daajooti muy les arènes les arènes nag ka mu seqal waxtaan moo di Gris Bordeaux troisième tigre bu Fass ba Gris daal violence yooyu ñuy wax ci làmb ji rawatina bi amoon ci diggante Tapha Tine ak Boy Niang Gris doo daal la mu xamle ne na du kenn du kenn koo xam ne ni dañ ko koy jiñ ku dul promoteur ba di Pape Thialis Faye giri na ko lu jiin njaaka yaay njaak ndax yow yaa woote te la nga war a def defoo ko ba pare naan da ngay woo ay nit di leen dajale moo tax giri na na ko lépp daal yow la Thialis ne itam tàmmel ni tontu lu forox la def Thialis ne na daal lu ci mën a xew comme lépp mën a waaye tafaatin moom Thialis ne na ko dootoo ko defati ndax nag ay sanction moom foo jaar mu dal sa kaw ndax contrat lañu ñu signé séq ko nga waroon toog matale ko ba pare nga xaat di dem kon yow moom jàppal bu itam yow la cay fekk moom force dina la ca fekk loolu waxi Pape Thialis Faye la ci les arènes ba tey bu nu continuer Franc digganteem ak Tyson 2 mel ni ki nag yëglikaay bi ñëw na ca maanaam daal les quatre pièces yoo xam ne daal moom la ca tànn tey muy yoo xam ne war na ko caa mën a génne leneen loo xam ne ci biir les arènes fa koy fekk muy diggante ki nga xam ne nii wala boog góor a soog daal mu mel ni adversaire ah est-ce que xeeñul ka nga xam ne moo di baabooy keneen koo xam ne nii moom adversaire am ba mu bëgg maanaam kenn la muy Serigne Ndiaye numéro 2 que mu bëgg a bëreel daal neena na du kenn ko dul Balla Gaye numéro 2 mu géejawaay daal la gis ne moom la sampal ndënd bëgg a bëre ak moom yëglikaay bi ba tey buñ ca continuer ñëw na ci loo xam ne nii daal moom mooy ñeenti mbër wala juróomi mbër yoo xam ne boo xoolee bëre nañ ay combat yu baree bari lu toll ci quinze te kenn ci ñoom mësoo bëre rawaas muy Boy Niang muy Reug Reug muy Sa muy Garga ba ci Siteu les arènes moo xëy tey jàngate mbir ya nu mel ni ki noonu ba tey bu nu continuer ci biir les arènes ka nga xam ne ni moo di Tyson daal digganteem ak Franc mu doppan presse ba daal yëglikaay ba ñëw na ca bu buñ fa jógee nag fa ñuy dem moo di ca Equivox TV mel ni ki nag dem open presse ba moom fa mu amee woon moo doon ca Cité Fadia ga ca Parcelles Assainies waaye ka nga xam ne moo di Tyson moom wala boog Garga numéro de yëngal na dem parcelle ba mu yëngutu ndax nag ñoom Modou Lo Papa Sow gar góor a maanaam mbëri parcelles ya kenn desul ñoom tafa mbër aada booy bawal maanaam boo bëggee dégg dëgg parcelles yépp a génn dem sabar ya sàjj mbooloo ma yuuxu maanaam ndiiraan ma mel ni bu ma la ko waxante garga de diggu maama lamin lu méttee métti samdi mel ni kon daal gars yi bu ngeen yeboo waaj te bañ ko jaawale datub la 19 bii te arène nationale Vox Arena gii lamb joo xam ne masu fee am ndax nag loolu moom gis ko du yomb Tyson 2 Franc Mama Lamine Garga 2 ak lañ làq ca ginnaaw a ginnaaw bu bëggee dégg dëgg Fourrière bu Grand yoof ca lay bokk ak kan Baye Mandione Senior bu Caaroy waaye de su ca yem de am na leneen lu ca làqu maanaam alias biram si sikkarkat ba caatu ngewel bu yoof loolu lépp ci benn bés la nar a am Vox Arena koy def kon gars yi daal xamal lu may def ne waa Vox Arena jaaraama jaaraama jaaraama ndax olof a ko wax ku yokkul yaa wàññi te ñoom daa mel ni ñu ngi yokk. ayca am na solo ñu daal di ko jukkee journal suñu làmb Babacar lañ fa gis nag mooy euh, scène des violences lors des face à maanaam mhm. violence yi nga xam ne day faral di am ci face à face yi. Mhm. Euh, ñi nga xam ne ñoo di waa CNG daal dinañ euh, imposer nag la présence des force de l'ordre maanaam takk der yi di dugg daal ci mbirumu face à yi ba pare ñu ngi xool ndax duñ ko def nag en plein jour. maanaam plein jour mooy bëccëg. ok. waaw li ma si xam daal wala li ma si mën wax mooy violence moom déjà waxoon naa la ko démb ami mhm. amul njëriñ fenn. Mhm. violence verbale ak violence physique ak violence yëpp ay violence parce que wax rax am na kàddu boo nga xam da nga koy yëkkati jëmale ko ci doomu aadama violence lay doon. sans compter nag nga jël arme yaa xam yet la wala leneen lu mu mën a doon mhm. jëmale ko ci sa moromam doomu aadama defe naa loolu nit bu amee bu ñu xalaat waroo koo xalaat ak mhm. loo mer mer mer war nga ànd ak dal mhm. ak loo bëgg-bëgg war nga tamit contrôler sa bopp ba yenn yi doo ci yegg bu ñu nag tey ci làmb ba nga xam ne comme ni ñu koy waxee làmb développement la ci dëkk si ah, su Sénégal parce que li tax mooy mooy mbër yi koy pratiquer tey ku ci nekk si ñoom am na si ñoo xam ne tey ay chef d'entreprise lañu ñu ngi yore ay nit di leen liggéey di leen fay ay salaire te ci làmb lañ ko jële ay mbër ay promoteur ay nangam ay nangam ñun ñii noonu ñu ñi fa fay ndax làmb kon defe naa ne loolu lépp su amee làmb nekk lu nga xam ne nii facteur de développement la defe naa kon acteurs yi nga xam ne ñoom ñooy principal acteurs yi di ko def partie ki war nañ fexe ba violence du ci di am mais des fois nag mën naa ne mën na bañ doon am na ci loo xam ne mbër yi nañ ci am responsabilité mais am na loo xam ne supporters yi lay doon am na ci loo xam ne tamit ki organiser daf ci am responsabilité kon nag CNC tey bu demee ba gis ne dañ maanaam bu koy defati bëccëg lañ koy def te bi ci des mooy da indi sécurité defe loolu moom mooy li ñëpp doon wax rek xaw ma bëccëg xaw ma guddi fu ci mën a doon dal heure bu koy def man heure ba koy def moom mhm. du ma intéressé waaye li ma xam daal mooy fu ñu koy defee mhm. nañ fa indi sécurité loolu moom seen mhm. CNC moom dama ciy ànd ak moom ku utul sécurité mhm. doo dajale ay mbër mbooloo di fa ñëw parce que bu doon tey ñaari mbër yi nga woo fi ak seen ñaari nit mën na bañ problème waaye nag mbooloo ànd tamit waaw mënta ñàkk ah, daal mbooloo boo leen dajalee ami waxuma sax ay face à face waaw non parce que tamit olof ne am na ñuy gàmmu am na ñuy raas dem parce que ti dem yi faw ñu dugg ci biir ut seen déma ah. mm-hmm. noonu la demee kon loolu na ci promoteur yi xel mm-hmm, am na solo mm-hmm. am solo bu ñu jógee ki nga xam ne moo di bombardier ci combat am digganteem ak Balla Gaye nekk le 31 juillet incha allah moom daal leen fi nekk nii pare na j'y waaw pare de xam naa ne fi mu nekk nii daa jot ndax le 31 juillet moom soreetu ah, ndax yaakaar naa mois de juin xaaj na mhm. te buñ ci jógee kon mois de juillet la ñuy dugg buñ duggee juillet nag ñu ngi ci weeru combat bi mhm. dafa naa fi mu nekk nii moom lay jeex na mhm. ah maanaam bëre nag mu ne dem na kër waaw mbaxi mag day na solo yal nañ ko te mhm. Mhm. ak ñun ci ki nga xam ne moo di suñu papa Double Less ci feebaram bi. Mhm. mais xëy na rek wanewaat ne euh, ñi nga xam ne ñoo di ay doomam muy Balla Gaye ak Sa Thiès vraiment ñu ngi koy euh, jàppale bu baax a baax ci prise en charge bi mu doon loo xam da leen war nag. waaw non loolu moom defe naa du loo xam ne nii du luy doon information la. <laughs> koo xam ne mooy sa wuy jur. waaw vraiment. ah defe naa ne bu tëddee feebar jàppale ko wala yore ko moo la war te defe naa itam loolu nekkul loo xam ne daal sax lu kii la defe naa Balla Gaye dé moom ku ko xam mhm. ah ci li nga xam da nga koy dégg ci moom ci nit ñi di ko def ci jàmbur déjà di ko waaw muy dimbali ay nit mhm. defe naa kon yaa sàkkantuma laa sa wayjur mhm. kon defe naa loolu moom na jóg ak jàmm amiin di ko ñaanal bépp nit bu wéradi defe naa ne loolu moom lu leen waral la te itam nit ki nit nag mbir dina ko war te du ko def mhm. dinañ am des fois dara war la doo ko def waaye seen way juróom wéradi daal mhm. yàlla na ko yàlla yëkkati mu ngi suñu papa dugales di ko mhm. ñaanal bépp doomu aadama xam ne nga wéradi am na solo ki nga xam ne moo di moo du Fall daal di ñëw ci euh, ba franc ak ki nga xam ne moo di Tyson 2 mu ne daal euh, on la mhm. mhm. li tax mooy lépp a am. Mhm. waaw na ci nit ñi bàyyi xel na nit ñi bàyyi xel ci loolu parce que la ngay def man nga ko te bëgg nga sa bopp te fonk nga la bés. Tyson 2 du mbër mu caax du muy caaxaan mu neex wala mu du mbër muy caaxaan de te damay wax ne am na adversaire yu Franc Brél. Mhm. am na am na différence ak Tyson 2 mii. loolu itam nañ ci bàyyi xel bu baax a baax kon làmb ju dangereux la Franc itam nekk na benn xale boo xam ne sérieux tey ci làmb man Babacar moom sañ naa wax ne gisuma mbër mu ko gën a sérieux mhm. lakk commencé ci roi des arènes ba ci suuf mbër mu gën a sérieux franc ci li muy def gën ko ko fonk Babacar Guissou yaa ko xamul caaxaan yaakaar naa kooku itam bu jëmee ci bis bu mel noonu mhm. ak adversaire bu mel ni ma la wax léegi defe naa combat du ko gën a dangereux waay mhm. mhm. bu ñu foofu euh, mercredi du CNG mooy lamb yi ñuy tëgg rek euh, les mercredis lutte avec frappe euh, ak ki nga xam ne mooy takkandeer moom la ñu war a tëgg waaw les mercredis CNG ah yaakaar naa ne les mercredis Euh, moom day am. Mhm. te day. maanaam ñu bàyyi ci xel bu baax a baax. Mhm. Iba mécanicien ak takkandeer. Mhm. muy loo xam ne nii dina nekk lu baax a baax a baax quoi. Euh, bu ñu jógee foofu nag ñu dem fi nga xam ne moo di les Euh, ce qui s'est passé euh, au face à face de tafatin Tine Boy Niang est inadmissible ki ko wax mooy euh, ki nga xam ne moo di Gris Bordeaux mooy li xewoon ci face à face su Tapha Tine ak Boy Niang yooyu lee xibaar suñu làmb ñoo ko fësaloon buñ jógee foofu ñu daal di jàll ci les arènes journal bu bees bi mhm. lañ fa gis nag moo di ki nga xam ne moo di Gris Bordeaux mu daal di dellusiwaat ci face à face su Boy Niang ak Tapha Mhm. Mhm. xam nga dafa avorté woon na boobu boobu face à face. waaw moom daal nee na si inadmissible. waaw li mu wax moom mooy li am ah, ay violence yi moom comme li ma waxoon sax kii bi rek maanaam bi ñuy ubbi amee ah, violence moom baaxul. Mhm. violence loolu giri boobu doo wax du loo xam ne lu kenn war a mën a tolérer la et puis kenn mu def ay violence si foo ko mën di defee ak noo ko mën di defee. nit ki lépp lu la naqari. wala nga am looy défendre yaa xam ne nu mën a doon. jiimaan ak sa xel dal def ko moo gën. parce que saa boo defee violence après bu sa xol giifee da ngay rëccu rek moo tax violence amul benn sa mhm. njëriñ terewul nag ñun ñëpp ay doomu aadama ay xol lañu yor dañuy ñu naqari am lu ñu neex mhm. waaye yàlla nañu contrôlé voilà yàlla nañu yàlla dimbali ba bu ñu meree rek mhm. mën a contrôler suñu xol ba du ñu wax loo xam ne après bu ñu paree dañuy rus parce que olof nee na kuy xuloo xuus booy juboo da ngay tefesu yàlla nañ si yàlla musal amiin waaw kon yàlla nañu am li ñuy desal waaw li nga xam ne moo di Pape Thialis Faye moom mi ngi persister et nee na il y aura bien euh, sanction contre ki nga xam ne mooy di Tapha waa waaw loolu de moom moo tëgg combat bi Tapha Tine kara bi violence yi amee dafa demoon ñibbi. comme mhm. moom nag moom tëgg dina dina am ay sanctions yu ko daal daal ci mhm. loolu wax mu ngi koy dëggal ah loolu moom amuñu luñ cay wax liñ liñ cay wax daal mooy moom ak staffu Tapha Tine ak Tapha Tine ak wàllam ak CNC bi ñoom ñooy xool bu fekkente ne am na lu ci war a am. nañ ko xam. Mhm. d'ici quelque temps parce que ay kayit lañ signé. defe naa ne waaye li may li ma ci li ma leen di jox rek muy moom muy tafaatin. Mhm. muy ku ci ne. Mhm. na nga sóor kani la leen boole woon démb. nga bàyyi ci xel. parce que ami démb dafa jar di bàyyi xel. nit ki bu bu bu nekk ci tey rek mel ni démb amul woon démb am na yaa ngi ci tey ci suba lay ñëw. kon loolu seede yàlla. Mhm. Euh, verbe chef bi seede na. j'adore moom day seede <laughs> ah, loolu daal laa la laay wax. xaw ma ah. sànq soo xamu ou pas. Mhm. waaye nañu bàyyi xel ci ku ci ne la relation ba la lii ak sa morom. Mhm. muy relation humaine. loolu dafay ëpp solo solo des fois. xaalis bi day ëpp solo. contrat yi day ëpp solo leen mhm. parce que nit moo gën a fort. Eh, lu mu mënta doon ñu nit di wut alal yow wutil nit. exactement nit ay garabam de. voilà noonu la demee mhm. Mhm. ba tey journal bi dikkaat ci diggante euh, Tyson 2 ak ki nga xam ne rek moo di Franc. arène nationale lay doon samedi incha allah. waaw ñu ànd ci ak. diw bu baax gi rek <laughs> bu du mën a ñàkk loolu moom ku yebu waaj rek nee naa leen samedi kay bu ñu fi yàlla bàyyee. dinañ gis bés bu ñu mës a gis ci làmb parce que nag. lamb ji ñëpp koy waaj fi mu nekk nii. addina bi yëpp koy waaj. fu ne ñu ngi ma fay wooyee. Mhm. Europe États-Unis Asie mhm. fépp ñu ma fay wooyee ah, sans compter réew mi ñu nekk di Afrique ak Sénégal bi Vox Arena itam jaaraama rek la ñuy ah, wax ah. bi am na solo. Mhm. li ñuy wax rek mooy ñun ñu ngi ci biir. dinañ ci def lépp lu ñu man mm-hmm. te itam waa làmb jëpp taxaw nañ jàpp pour jàpp ci mm-hmm. pour que samedi ñu réussir bés boobu parce que mm-hmm. seen première dugg si la ci arène wax dëgg yàlla buñ ñu sañoon ñu duggee ah bu bis ba jeexee dañu am satisfaction satisfaction na du gañe xaalis kese non non mais nga def ko mu commencé ci jàmm jeex si jàmm nit ñi ñëw loolu lañ ciy ñaan quoi waaw yàlla na ko yàlla def tam nañ si yàq te itam di leen xamal ne ah nañu xaar ndax xam na animation daf fay am bu neex ndax xam nga fu mbayang lum di ñëw ah mhm. ànd ak Maodo fay la gose Masik doomu Gaye Njaay boobu kon jàppal ne samedi ami Maodo moo koy tëgg Maodo gose Masik mook mbay lu may ànd sama kenn xam nga ko bu baax ñu ne dëkk waa Gaye la voilà noonu la fa demee te Gaye Njaay fa la waaw eh, ah, xam nga Ngaye Ndiaye ak Babou Ngom Maodo Ngom Maodo Faye Maodo fii waaw mi ngi noonu Ngaye Ndiaye daal mu ngi noonu macha allah ay ndaanaan lañ faa dëkk ñoom yaa nekkoon du seen waaw ah, waaw yaa nekkoon ko yàlla yërëm xarakal yow itam ngay <laughs> ah, ndaanaan dëkk fa ah waaw ci nga a ñàkk damay rek non ndaanaan voilà mi ngi noonu nag euh, leen ko waxee vermicelle baa ngi nii mooy macaroni bi macaroni mhm. mm. nga ci reere démb. non démb spaghetti bi laa reere. am na spaghetti. Ah, dawlin bi lañ ko defaree. bien sûr ba tey baax na <laughs> mi ngi noonu. fi la ñuy daal di yem tey nag ci xibaar yi nga daal di tàggatoo. waaw sant yàlla rek julli ci Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñaan Arena mhm. bi. Mhm. rawatina fans club 100 mhm. pour parce que dafay am yoo xam ne. yàlla moo leen. bëgguloo Babacar lu ah. Babacar nekk ñu nekk ca kon ñooñ awma seen fay rawatina Cissé depuis Brésil ñoom Adama Ndiaye Arona Camara Mhm. gars yëpp góorandooy président des amateurs mhm. moom tamit ñoom ñëpp ñu ngi ci biir fans club Babacar ak Vox Arena mhm. mais tamit fans club Babacar cent pour cent bi ñoom Grand Laye ñoom Jiga boobu beneen groupe la ak ñoom Baye ñoom Cédric Pape Ndiaye ñoom am ndam kon ñooñu awma seen fay yal na leen yàlla suñu borom bi fay di ñaanal ñëpp jàmm di wax que tamit président des amateurs du jàncee ko maa ngi koy nuyu moom suma nit la mhm. parce que yàlla moo ñu boole muy koo xam ne royukaay la parce que li mhm. tax mooy ku mën a taxawu doomu aadama la mhm. ci alalam ak ci léppam dafa naa ne euh, yàlla na yàlla def jàmm Sénégal daal. am mhm. bu baax a eh, maa ngi lay bëggee bu baax yow itam am na solo fi la ñuy daal di yem tey nag di leen jaajëfal yéen téléspectateurs yi nee naa leen amuñu seen fay buñ toogee fii di wax c'est que yéen ñuy déglu nii lay demee rek seen journal de l'arène di leen jox dig daje ëllëg incha allah ci beneen numéro jërë ngeen jëf.